يا آمين قلنا سيدنا عائشة ما النبي صلى الله عليه وسلم نصف دينكم من هذه الهميرة feccere diine mon jange e oɗo debbo ɗum omo jodde annabi sallallahu alayhi wa sallam ene haalnamo haala ɓure leylatul qadre wima arayta in wafaktu leylatul qadre maga aqulu ya sallllahu alayhi wa sallam holko jogormi allah النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولي قولي قولي هكذا فأنجنا وياهل أنجنا وياهل قولي وبي النبي صلى الله عليه وسلم يمو يعني ليلة القدر حال حالي لو دي كبر مجد كون حالي فوق النبي يمري النبي يمري كو الله يمري kuisatawa mudu tawa mudu alhamdulillah yen jeɗo tawede leylatul qadre yalla yeyata oɗo jamma wirji ko jamma leylatul qadre jammaji garoji gari gona jamma leylatul qadre jammaji ɓennuɗo gona jammaji leylatul qadr allah ene yaaji yurmede makko ene heewi ala ko waɗata yurmede nde sona rokkude julɓe eɗen katojini hen waɗɓe hande ko leylatul qadr كليلة القدر وب جنگ كليلة القدر يوون ليلة القدر لا حرج لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم في آئسة حال لدو كنغو دي كيواني دي چتاني ندو فون واي حال دي رفتهن ما جوني انو فون دفتنن وي اللهم اللهم إنك عفو كريم تحب الأفوى فاعفو عني اللهم إنك كريم لطيف تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم لطيف تحب العفو فاعف عنا روايات نكالر العفو نسلك دعاء allah hokku en hawre nde ɗiɗo konnguɗe den ɗum fof so yehi o wal haalde ɗum haa weta hay sino haali ɗum janngo e ɓaawa janngo fof ko baraji windante heen yallah hokku en jam yallah hokku en jam yallah hokku en jam yallah yoɓa en kul abdi lam taskurni ida lam taskur man ajaraytu nemata ala yeday allah wi hade ma yettudemi ƴeew kalɗo jamirɗoma walla ƴeew puɗɗanɗoma no moƴƴere Eh, ha ganduɗa moƴere dewɗa hen yettu on jetta kam min allah enen fof eɗen denna eɗen jetta rasul sallllahu aleyhi wa sallam ene jetta seydina cheikh tidiane en jetta wasaid uji men en jetta jinnaɓe meɗen kono eɗen jetta ceero montaga ahmad duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi e ngal ɗo diŋiral duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɗum ɗo ene waɗe ɗo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi sowona duuɓi sappo ɓennuɗi o ar o o juuldani e men ɗo kanko e wondiɓe makko e kanko fuɗi ɗum ɗo e ngal ɗo diŋiral e yettude allah ha joni ene jokki yo allah heddu ɗum ɗo ha ilal abad e wondunoɗo e ceerno umar e taale ngari taymuɗo nanɗo jooɗina wonde e muɗum kañum e ɓesgu muɗum ceerno abdoullahi dia en ngari jeeya heen yo allah yur muɗum yaafo ɗum ceerno ahmad seybato en ɓe ngari jeeya heen ɓiɓɓe mum en nanɗo jooɗi alhamdulillahi julɓe ɓe woni hen tawtortinoɓe nden haymo tawtorano ko nden tawtora ko gollal makko tawtora ko e yamirore makko ko e yamirore ceerno saydou nour tall nde ari ɗo ceerno saydou wi a hootata ɓogge ñinmi ko gona ɗo gonden gonana kam junngo ñaamo o woppi duɗal makko toon o yiɗano woppude ngal Eh, ono o paani ngal si ko e eh, ngal o arde ngal ga woodi ko hedditi toon wodi hedditi toon e ceerno oumar ahmad yalla moƴƴanɓe kamɓe fof o reni ɗum yilande en ceerno mon seedo saydo yete e mum yamirore wima e ya juule waɗoy nafila galle ma wado wasifa galle ma alhamdulillahi rabbil alamin ɗum meeɗa bon ala hitande nde ɗum taƴi omo ɗo o ala ɗo fo heewani ko wonani ɗo alhamdulillah himbe makko eh, himbe makko eyi kanko e ceerno umar en tan yiya e, e bokara diaw en e doro bari en kamɓe gonanno ɗo e ceerno idde en ceerno cheikh dahar en e ha kada wona wirtiɓe ɓe ne juula ɗacca haɓe ƴukko ndewa ɗo doga jaaha eyyi ko noon e jiɗa yi o jiɗa o yiya ɗumen nan dogui e kono noon alhamdulillah cukam alhamdulillah eh, eh, e loogol alhamdulillah e haajuji taw wona anji wona anji oɗo puɗɗanɗo en ɗum kala ko golluɗen e moƴere yo allah rokkumo santage makko hen yo allah rokkumo santage makko hen ɓe wondunoɓe ene men ko ene ceerno oumar tal en yo allah woppu ɗumen ɗo ko juuti alhamdulillah cheikh tahar en yo allah woppu ɗumen ɗo ko juuti alhamdulillahi salif diaw en alhamdulillahi awalimtiddeɓe alhamdulillahi eh, hay mustapha tall kay ko tawino mo ɗo wondiɗo e makko ɗo wulle dow mum ɗo alhamdulillahi alhamdulillahi ko mawɗum mamoudou dia mamoudou dia on way ko namni somi haali mamoudou dia mi haala hooram alhamdulillahi yo allah jaɓanen yo allah jaɓanen e on tinnima en jarama gasata won woɓɓe nan ɗo ene jogii ko konguɗi ɗi ene kaala heen kono eh, allah hokku en wattude ndi muuri gorko ka en nguuri e makka eɗen mbelti no nguurduɗen heen ni won wurɓe e korka ka e fuuta e ko nanndi heen e mali en e nokkuuji goɗɗi nguleyki cattuki kono yidde ɗumen allah e yidde ɗumen baraji e yidde ɗumen rewde yamiroore nguule kin wuliri fof ene defti ɗum mm, yallah jaɓana jaɓana ɓe mm-hmm. eh, korka yimɓe ne jiɗi ɗum yimɓe wonno wona korka yimɓe jiɗi jiɗi ko allah wonno ko allah dañete hen eyi eh, kanko jimowo hono ni ɗiɗo e ñalawmaji korka ara e gasde ƴetti kuɗol makko o wi ramadanu walla woddumu utu bayyinuhu ramadanu ولا والدموع تبينه والقلب مكلوم من الأسواق والقلب مكلوم من الأسواق سحر رمضان سحر الإبادة والتقوى والرضا سحر سحر التلاوة فرصة الإنفاق فرصة الإنفاق أصحاب الخير يعني. ينفقون فيه أموالهم أصحاب الخير نفسيا يسلون أرحامهم فيه ويطلبون رضا والديهم ويرحمون أولادهم ويهرمون فقراءهم هكذا رمضان ولا وال وال وال وال رمضان ولا فالدموع تبينه وكأن قلبه يبكي لأن رمضان فارقه ويذهب سحر لتحذيب النفوس وردها عن غيها وسفاسف الأخلاق كثير من الناس يرتكبون المآسي في غير رمضان ولكن إذا رم... أتى الرمضان يتوقفون يتوقفون ɗum ɗo noon معلم كبير سيل رمارة أيدا أو يها آه وانا هيوب أنا وانا إكولاجي وانا هيوب أنا وانا يدود so aɗa ñalaw ma ari aɗa duwena aɗa serta e duɗal ngal goya gowka eyyi kanko ne ko korka ka no wowri ɗum ni nafoore nde o andi ne wone korka henne de serte makko ɓernde makko ene woya hay so guite ɗe juppani gonɗi kam ɓernde nde ene woya sibo o serti e gueɗe moƴƴe ramadanu walla Eh? Eh, alhamdulillahi hoto allah waɗ kaɗo korka korka wattindi ka koreten yo allah hawrini hen lawol gongol yo allah jaɓanen moƴƴi no ɓeɗɗen tafo yafowte ko taatiɗen alhamdulillahi rabbil alamin en jetti julnannoɓe ɓe en jetti wondunoɓe safful awwal so tawi seyɗane ɓilima hakkude eh, hakkude ɓerde makko e qur'an o ittoɓe seyɗani o ɗon emi firti ko saggitoɓe so bawɗo qur'ana so saggi ko seyɗani ɓili ɗon alhamdulillah saggitoɓe ɓe so caggi ɓen ɓen e wertoɓe ɓe e fewnoɓe gueɗe ɓe tawtorteɓe ɓe fof ceerno makki ne yettaɓe dofte makki ceerno makki Ceerno Makki Muntaqa Ahmad Muntaqa Cheikh Umarul Fuuti nee na Ceerno Madani yow xalifa bi sa wax yóbbaale na leen géew ɗum so yamiri alay sago min kaala kono ko fotno haaldede ko haalede ko fof o haali waaye yow xalifa bi soo joxee ndigal ndigal jëfee waaye lépp li ñu waroon wax si lu baax ak jokk mbokk wax nga ko yóbbaale nga leen géew sona bismade arɓe ɓe e inde makko lu dul dalal gan yi juux si fii si sa tur ak si sa kàddu ɓe gona hoɓɓe kamɓe poti bismade kamɓe arɓe ɓe fof ko ɓesgu ceerno mum daga ne soo gisee ñi leen di dalal amaana doomi aadama soo ñëwee si bërëb ñu ne la bismillah waaye ñoom ñi ñëw fii ñoom ñëpp njaboodu ceeru muntaqa lañu kunguɗe men ko njettoor tan yetta yettude yettude alaji sey nour mo ngannduɗa sababu ne makko ceerno muntaga ari ɗo ne sante suñu borom moodi dañuy sante suñu borom tabaraka wa taala ay xéewal yum ñu defal ceerno sayidu nuuru cheikh umar radiallahu taala anu bi mu gisee qualité yi nekk ci ceerno muntaqa ahmad mu ne ko kaay nga nekk fii sama wet nga nekk sama loxo ndeyjoor nga nekk sama loxo càmmoñ nga nekk sama kàddu nga nekk sama ndaw nga nekk sama lépp na ceerno bii nii dum do fuɗɗima ko buri duubi capanɗe jeedidi sabu enen en jibina tan tawden cierno no woni hen no wonde wondibe makko guila e cierno amadou balen cierno seydou gayda en ceerno idi lamine en ceerno ceerno oumar ken en cierno uh, eh, ablaye dia en uh, baba alassane lien en uh, siley bara en sen bi eden limta en juumat kono en gartan tawden mo wonde jinnaabe men kambe kamɓe no hen wayano ni non saabu ko ceerno tan e galle makko e, e yogay almuɓe makko e, en jetta allah noon ɗum ɓuuri yajde e, ko kala ko kala ko kala ko woni kala ko ganduɗa fuɗɗirama koye koye gonga fuɗɗira saabu allah yarata ko yesso tan ɗum noon eɗen jetta ceernoma dani saabu kanko ne o yajni ɗum ha ɓuuri yajde nde ceerno mountaka ahmad bi mu tàmbale lii ëpp na juróom ñaari fukki at jëm kaw ndax ñoom ñii di wax dañu gane si àddina rekk gis mu Muntaxa di def taraawi bi taraawi bi bi mu Muntaxa doon def moom ak njabootam la woon ak i taalibeem ak i dëkkandoom yi mu dëkkaloon ñoom la doon defandoo taraawi bi cité na fi tur ñu bari waaye soo duggee ci lim rekk dalay dugg ci njuumte ndax ñi nekkoon ak Ceerno Muntaqa ba ñu ràññee leen xàmme leen ñoom ñoo nekkoon sahaaba yi nekkaloon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari nañu lool duñu xaaj duñu jeex ñi mu jot tudd fii seeni tur ñoom ñoo nekkoon fii ak Ceerno Muntaqa ànd ak moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon ak njolloor Ceerno Madani nag bi mu ñëwee mbir mi melul nii de Ceerno Muntaqa su demoon ba leetu jot su ñu defee mottali alxuraan bi wàcce kaamil mu waaraate joxe ñaan kenn ku nekk dëppaat ci sa néeg nga daal di fa jaamu suñu borom tabaaraka wa taala waaye Ceerno Madani yow gàcce ngalaama bi nga ñëwee nga daal di yaatal mbir mi lool ba ñëpp jot si yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla taxu biyeten tan yàlla yóba neen ceerno muntaga yàlla yóba neen ceerno ma daani lomta ma koo rokka mo cellal e balɗe juutɗe o ɓooya ardaade min kanko tant que mun woni ɗoo tan miyen kam ɓerde men naddiiji ne ceerno ma daani yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko suñu kanam ndax tur day wuru wuyu borom soo gisee ñu ne Ceerno Madani xaadimil hadaratul umariya ah loolu am na lu ko waral de tur wuyu na borom tur joojee ñu la tuddee walla nga tuddee sa bopp nga nekk mbindaanu hadara nekk mbindaanu jullit di leen liggéeyal guddi ak bëccëg suba ak ngoon naaj ak ker ah loolee ngay def de yàlla gis na ko yàlla na yàlla fay ñu ngi santawaat Ceerno Muntaqa Ahmad bi nga xamante ne moo ñu tàmbale lii ndax man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati aduna noon koko yahattan neɗɗo noon yo wonde yo yaado e aduna muɗum ceerno madani nanni hen gueɗe goɗɗi ɗi ganduɗa no walla ko wayno concours oɗo concour o sukaɓeɓe wona kodde ni tan ɗum no herjina sukaɓeɓe jangude gueɗe kewɗe ko waɗa ko wiyata ko hitande foof o addu hunde ko ganduɗa sukaɓeɓe ma won ko ɓuuri sukaɓe capan tato walla ko fawi goto foof huño hen hunde nafa ɗum donc eh, en jettamo hen no fewi en jetta kadi ceerno oumar mo ganduɗa wondunoɗo e ceerno muntaga guila fuɗɗode kanko waɗannoo tarawi ha o kanko e ceerno ablaye dia joni noon ha joni woppani galle o joni o o natti wawde ko wawno ko kono ha joni o ko himɓe o tan woni ɗo o alay saago o ara o humna aadi gonduɗo gonnoɗo hakkude makko e ceerno mum taga eɗen jettamo hen no fewi nde ceerno oumar tall yo allah nala yo allah fay yo allah yo allah gan guddal sa fan yo allah mayla wergu yaram mayla mujju bu rafet ndax lii yow ak Ceer Abdallahi Dia la woon yàlla yàlla yërëm suñu sëriñ Ceer Abdallahi Dia te xaare ko àjjana yu gën a kawe yi yéen ak Ceeru Muntaqa la woon yow soo gisee lii su demee ba weeru koor ñëw nga bàyyi sa lépp nga soox nga daldi ñëw ànd ndox njaboot yi du kàttande waaye cofeel la ak gunge la cofeel jooje ak gunge joojee yàlla na yàgg adduna nag suy dox da dox nga ànd ak addina ndax ci ramadaan am na lu mu keryee te li mu keryee wesaare xam-xam la wesaare xam-xam ja nga xamante ne ji maamam Cheikh Umar Fuuti radiyallahu taala mbindam ji muj bàyyi woon soo gisee yaa rabbanaa bi sidikal maknuun ñu bari mokkal nañ ko tey tey fii wasifa su amee si bërëb bi yaa joxe woon ndigal yow xalifa bi Thierno Madani suñu noppee wasifa rek ñépp nañ yëkkatindoo def yaa rabbana bi sidikal maknoon téere Cheikh Oumar tazkiratu mustarsidin wa falahu daalibin Cheikh Oumar mu ngi ko def si rawda yonent bi sallallahu alayhi wa téere joojee xale yu bëri mokkal nañ ko nga jén ko def ko mu nekk pricièru Muntaqa ak ju jot nga ñuqi sa biir poos joxe ña nga xamante ne ñu jël raawu gàddu ji même ñi ko jërul tamit nga defal leen ay leexal yéen njëtt mi ñu raabi bee sabu ceerno dandi nooma e ndeer korka he min mi alaano ɗo ceerno habibu alaano ɗo ceerno seydou alaano ɗo kono miñiraaɓe heddiɓe ɓe hono ceerno haadi ceerno amadou ceerno oumar ceerno cheikh tidiane cheikh tidiane ko ɗannino ɗo donc ɓen fof darima dari ko ceernoma dani fotno wadde ko fof ɓe darima ɓe lomtimo hen ha timmi eɗen jettaɓe eɗen duwanoɓe eɗen duwano ɓesgu ceerno muntaga foof so wiyama ɓesgu ceerno muntaga wona ɓesgu ɓesguji makko banggue keeci tan ko ɓesguji makko ɓe ganduɗa almuɓeɓe foof ko ɓesgu ceerno muntaga ko ɗum o jagguiriɓe donc ceerno kaalido en ceerno oumar en kamɓe fof ceerno oumar ceerno euh, mountaga amadou bachir da ha mi wi somi wi miɗo lumtata tan mi juumat kono fof wonɓe ɗo fof ko ɓisgu ceerno mountaga eɗen jettaɓe kamɓe fof e darde mabbe e tinnare mabɓe ha ɗum yettiɗo e peewal ne yéen ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ceerno mountaga baayu ñëpp la Ceerno Muntaka Ahmad musul wax doomi aadama sama taalibe sama doom rek lay wax eyow doom sama doom ñépp moom seen baay moom Ceerno Muntaka Ahmad te am baay ju toll ni Ceerno Muntaka ah am nga baay ji nga am nga baay jënga ndamoowaat mu ne xalifa bi di Ceerno Madani nekkul woon fii daa tukki woon te tukki bi mu tukki woon foofee mu nekkoon ñun la fa wuutu woon Ceerno Makki Muntaxa dafa tukki woon moom tamit nekkul woon fii tukki ju mu tukki woon ñun la fa wuuta woon Ceerno Habib bu Ceerno Muntaxa moom tamit dafa tukki woon tukki bu tukki woon ñun la fa wuutu woon ñun ñu wuutu leen fii Ceerno Sayid Muntaxa moom tamit gis ñu ko nekku fii dafa nekk si tànku tukki fi tukki fu mu nekk ñun la fa wutu ñun tamit ñu wutu leen fi waaye nag rakk yi fi desoon toog a ah, uuf njaboot ji ñoom gàcce ngalaama ceerno haadi bu ceerno muntaqa ak ceerno cheikh tidiane ak ceerno ahmad bu ceerno muntaqa ak ceerno umar bu ceerno muntaqa ak ceerno ahmad bu ceerno madani muntaqa ahmad muntaqa cheikh umar ak mboolem njaboot ji rek mboolem njaboot ji rek ñoom ñëpp ñi fi doon teew di def seen taraaw yi ñoom ñëpp ceero makki nee na leen jëre jëfadi si laaminu xalifa ju tedd ji di ceero madaani ko heddigoo noon jammoo no yaaji e, yaajaani sax mbiyennoomi te won geɗe goɗɗi no foti waɗeede sonaa tan mbarkinoreɗen e, no mbaɗen no nii deftere ndee Eh, timmi e alhamdulillahi rabbil alamin tarawih o waɗama ha timmi joni enen nde guittene posuji amen eh, mbarkinoroɗen hen inchallah ko heddi ko noon won gueɗe goɗɗe ne ara caggal inchallah ne mbiri léegi la tàmbalee léegi la tàmbalee mbir mi ne am na yeneen yëf yi nekk suñu ginnaaw kaamil bi mot na ñun tamit kenn ku nekk ci ñun góor jigéen mag ndaw dañuy jiite xalifa bi ci boppam moom na njëkk ñuqi ci poosam mu daldi jox ñi doon tari alquran bi ñuy xerewlu di teewlu ñun ñu baaxe leen ko mu nekk suñu xidma ñun ñépp ci Ceerno Muntaxa Ahmad ndax noonu la doon def kenn ku nekk ci ñun indil fii si Thierno Macky ak Thierno Hadi ak Thierno Habib ñu daal di dajale baaxee ko ñi doon taxawee taraawi bi bismillah Thierno Macky nee na mu ngi xaar ba xalifa bi génnee moom mu soog a génnee Thierno xalifa bi nee na nangu na li nga wax waaye moom alquran wàccul si maamam ne surafaaw yaa ngi fi alquran seen maam la wàcc même surafaaw yi ña nga xamante ne alquran seen maam la wàcc nañu ñukki ñu daal di génnee ceer abdallahi taal mu ngi fii ceerno ahmad habib mu ngi fii alaji moustapha taal général mu ngi fii docteur lii mu ngi fii Ceerno Maamu Dia mu ngi fii ñoom Serif si ñoom Ibrahima si nee di alquran bii doon jàngal Ceerno Muntaqa moom ñëw na jërëjëf Seydi Ly docteur a jaaraam yo Allah yëpp anne wiyaama ar fada yo yaw yo yaw wonko watte goɗɗum similla yo yaw wonko watte goɗɗum am na leneen lu ñuy def وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا ceerno nee na kii toog ak moom toog si feggam mooy directeur hôpital Sédhiou Bunu da onon sohnaɓe sohna madina muntaka en sohna fadima muntaka en directeur vous allez bien ça va bien jërëjëf lu jërëjëf lu gis nga gis nga Cerno mbokk yi ñu daal di teewlu ñu daal di teewlu maye nopp nañu teewlu maye nopp ne alquran kaamil dinañu wàcce waat kaamil léegi ndax mbaax du doy te concours bi ñu doon def at bu jot di prix Thierno Mountakha ne prix bu ñu doon def prix ngir Thierno Mountakha loolee tamit concours boobee dina def ne résultat bi dina génn léegi lu yàggul incha e ceerno makki wi ene loyide kala bannoɗo yo wat keppugu defo nanga defat mbir mi xawna desandi de keppugu defo nanga defat ne min la liñ doon def amuguñu genn wàllam kala bannoor yo wat jaram dia jom la faaje ɗoɗo mbawi artude jom laa faajer ngarte ngare juppon duttulon kadi docteur li o waɗi marche ko ba pare binduno ba pare waaw waaw dañ soxla bi pour yeneen rek dañ ko soxla pour leneen dañ koy soxla pour CRMP bi ala ala indi ko premier deux trois dañ ba daan indi. daal di. bisimillahi onon addoɓe ceerno wi gadde kala bannoɗo kadi ene ñaaga ngam teddugal alqur'an kala bannoɗo yo wattu jumno e calcul 15 mille 7 sept yu njëkk yi. waaw li ci des cinq mille cinq mille waaw. lii si dafa gis ne trois trois yi gañ. Ah, ah taal taal sukaabe bismillah. Thiel. Hmm, ah Dia. taal xale yi war a tari ñoom ñooy dañuy installé. ñoom ñaaw ñoom ñaaw

السلام عليكم بعدهم الحمد لله بعدهم كل بعدهم دولة الحمد لله على بعض الحمد لله Tadi, ya, kalau don don yoni, kalau don yoni, hebat ya lah. Bapa serpada, zen, ya, ini, ya, ya, non. n e n e g a r a n j a o u h ceerno yo onon fof yo ngar ko hammat sow e abdoul sow e alhasan sy e aboubacry ba alhasan sow labdil sow ah rokkimu rokki kasi wallahi rokki rokki de wallahi rokki ala rokki de min min de mo dum na ter lab de ajaji ma jam moy mo ja ja ja ja Zettan bi ɗum ƴettan bi ɗum coalition coalition oto Mouhamadou Sow we ah ah explique tap tap tap tap tap tap tap jodo bandiraɓe batten ga haqqillaji musabago e fuɗɗo e yamirore halife o jooɗoɗen enen fof ndecen enen fof jooɗen ndeecen ñun ñëpp nañu toog ne teg te teewlu ki mooy Mouhamadou Sow أعوذ بالله الجاء والجهل إلى إتقاري سادات أهل الله والكبار كي لا ينال كي لا ينال فضلهم للسقوة إذ قصده دنيا ودون سوى نفر الخذلان عن إكرامي أهل الهداية بالانفسام ما غاب من أحب أهل الله وما قدمهم لله نسأله بالفضل أن يرزقنا محبة القوم كما أمرنا إلى أخي أن ليس للإنسان إلا الذي سعى من الإحسان لا يعمل الإنسان من أوزار قريبه شيئا ولا الأسهار سل الفرائد مع الخشوع رتل سجودك مع الركوع أوجب ربنا إقامة الصلاة وجمدها كما قد انجلاه لذاك كملها بلا نقصان بالسر ولا اركان هان مماتك وأنت تلعب مثل منافق يصلي يلعب بارك الله فيكم ناخذ eh baasi y'a la baasi y'a la baasi y'a la egales أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجاه الجاه إلى احتقان سادات أهل الله والكبار كي لا ينال فضلهم للشقوة إذ قصده دنياه دون الصفوة نفره الخذلان عن إكرام أهل الهداية بلا انفسام ما خاب من أحب أهل الله وما قدمهم لله نسأله بالفضل أن يرزقنا محبة القوم كما أمرنا إلى أخي أن ليس للإنسان إلا الذي سعى من الإحسان الإحسان لا يعمل الإنسان من أوزار قريبه شيئا ولا الأسهال سل الفرائد مع الخصوع رتل سجودك مع الركوع أوجب ربنا إقامة الصلاة وجونا كما قد انجلى إذا أما جهاد الحرب فاعلم أنه فرض كفاية وعزم شعنه زر التكاسل عن الجهاد جاهد بجد كل ذي إناد إيلم أخي أم الرعيم بشرا أهل جهاد الحرب ثم أعذرا جميع ما يقول لو علمت فضائل الجهاد ما درسته إذ أنبى الله بأنه اشترى نفوسنا ومالنا وأخبره إن الجنان رأس ماله لمن يقاتل الكفار حبز السمن المشتري الله وسيد الوجود واسدة بين العباد والودود جرى بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بشر من أخلص في الجهاد بنيل بشر من أخلص في الجهاد بشر من أخلص في الجهاد بنيل مال أو صواب الهادي ما صرف الجالس عن جهاد لله دون عذر ذي صدد اعلم بأن الأمر والنهي على ذي قدرة أوجبه ربه لا تبا لمن مكن في البلاد ولم يغير منكر العباد عليك بالسنة والكتاب جانب زي الزي عن الصواب ما أقصد الدين سوى الملوك وعلماء السوء بالأفوك لم يربوا في بيهم نفوسهم وما على في بيهم أسمانهم وردوا في جيفة يبين أنت أنها لآجل اليتيم نختم بالصلاة والسلام على الذي بسر بالقتال يا رب يا أبو الحسين السيد لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذاك كملها بلا نقصان بالشرط والعذاب والأركان حان مماتك وأنت تعلب مثل منافق يصلي الأب ينظر في الصلاة نقر الديك ما نال غير لعنة المليك نصوا بأنه كإنسان الملك جارية ماتت وحدها الملك وكن إذا دخلت في الصلاة كمثل شخص كان في الوفاة لم يكن الفضل سوى الذي أقل من الصلاة دون ما كان غفل نفل الصلاة فضله مأثور وذنب من لازمه مغفور يا أيها العاقل سم شهر الصيام من غير تفريط وحل بالقيام وزكي أموالك دون نقص بشر من أخلص في الجهاد بنيل مال أو ثواب الهادي ما صدق الجالس عن جهاد لله دون أمر ذي سداد اعلم بأن الأمر والنحي على ذي قدرة أوجبه ربه لا تبا لمن مكن في الجهاد ولم يغير منكر الإباد تبا لمن مكن في البلاد لمن مكن في البلاد ولم يغير منكر الإباد عليك بالسنة والكتاب جانب زي الزيغ عن الصواب ما أفسد الدين سوى الملوك وعلماء السوء بنفوك لم يربحوا في بيهم نفوسهم وما علت في بيهم أهمالهم ورتعوا في جيفة يبين أنتانها لعاقل يدين نختم بالصلاة والصلاة أنا الذي بشر بالختان بارك الله فيك بابا جزاكم الله خيرا أبو بكر با أبو بكر با أبو بكر با تفضل رسول رب العالمين حذر بالله من الصيدان الرجيم رسول رب العالمين عزرا عن كنز مال فاز من تشمرا إلى امتثال عمر ذي الجلال سبحان ذي الجمال والكمال لما عن الزكاة ذي الخسران نار ماء الهميم والشبان لم يكن في الكنز ذو الخسران والفرق واللعنة والنقصان هذا الذي حول كل آبل المنئه لله دون غافل أول كل آبل المنئه كل آل عن من أهل الله من غافل نفل الزكاة المال قد قدمت فيه كفاية وما ونيت فالمتدين الصيام قد ورد في الذكر والسنة الذي سائم بعادة من آل بجهاد لقصد هد بيت ذي الجلال أوجبه الله على الذي قدر دون من وفي الذكر سكر أما لهذا الهد فاعلم أنه فرد كفاية وعظم سعره غير فرد كفاية فرد كفاية فرد كفاية وعزم سعره زين تكاس عن الجهاد جاد بجد كل ذي حناهم الله بنيل الأمل حناهم الله بنيل العمل بلا حساب وبدون الوجد هرب المنافق من الموالي قبل التمام علي بل جاء النجاة بتألم عن المعارف بلا توكل يظن أن عدل الإنسان يزداد أو يكون في النقصان رضي بالشيخ والكتاب قال انبياء صحت وردا بشر من في بالجهاد بنيل مال الله خيرا الحسن صح الحسن صح أما جهاد الحرب فألم أنه فرد كفاية وأحسن شأنه زربت كاسل عن الجهاد أما جهاد الحرب فاعلم أنه فرد كفاية وأزم شأنه زر التكاسل عن الجهاد جاهد بجد كل ذي إناد إلم أخي أن الرحيم بشر أهل جهاد الحرب ثم أزر جميع ما يقول لو علمنا فدعا إلى الجهاد ما دعفت إذ أنبأ الله بأنه اشترى نفوسنا ومالنا وأخبر إن الجنان رأس ماله لمن يقاتل الكفار هبذا الثمن المشتري الله وسيد الوجود واسدة بين العباد والودود جهز بأوالك جيش المؤمنين إن كنت ذا عذر تكن من المحسنين للشهيد يغفر أول الملا قاتل إلى هنا تعالى ذو العلا هو الذي يمنع كل الأرض عن أكل لحم الشهداء والقرد أيوة الذي لذاك كم منها بلا نقصان بالشرد ولا أركان حان مماتك وأنت تلعب مثل منافق يسني يلعب ينقر في الصلاة نقر الديك ما نال غير لعنة المليك نصر بأنه كإنسان ملك جارية ماتت وأهداها الملك وكن إذا دخلت في الصلاة كمثل شخص كان في الوفاة رسول رب العالمين هزر أن زمال فاز من تشمر إلى امتثال أمر ذي الجلال سبحان ذي الجمال والكمال لمالئ الزكار ذي الخسران نار مع الهميم والصعبان لم يك الكنز سوى الخسران والطرد واللعنة والنقصان هذا الذي حول كل عاقل من حق الله دون غافل جزاكم الله خيرا

جميعا يقول لو علمنا فدا إلى الجهاد ما دعفنا إذا أبى الله بأنه اشترى نفوسنا ومالنا وأكبرا إن الجنان رأس مالي لمن يقاتل الكفار هبش الشمن المشتري الله وسيد الوجود واسدة بين العباد والودود جهز بأموالك جيش المؤمنين إن كنت ذا تقوم المحسنين للسيد يفر ولا الملا فات إلى هنا تألاز الأولى هو الذي يمنى كل الأرض هو الذي يمنى كل الأرض أنهل لمسه السهدى والقرد أي والذي جعلهم أحياء ما التمتم كما إن شاء وهو الذي أمن من الفأس تاج كرامة بلا جزاء إن كنت يا أيها الناس شهر الصيام من غير تفريد وزن في القيام وزكى أموال دون نكس إن وجد النساء دون وقت خسران شخص مال الزكاة مؤين دنياه بلا ممات رسول رب العالمين الزراء عن كنز مال فاش من تشمرا إلى امتثال أمر ذي الجلال سبحان ذي الجمال والكمال لمن الزكاة ذي النصران فلتتوي الشيام قد ورد في ذكر وسنة في ذكر وسنة للذي اكتشف شايم بأقدام أو الرهال لقصد حج بيت ذي الجلال أوجبه الله للذي قدر دون تخلف وفي الذكر ذكر Jom samba Jom yawti ينقر في الصلاة نقر الديك مهما لم هيلان على تمنيك نسوا بأنه كإحسان الملك جارية متى وهدها الملك وقم إذا دخلت في الصلاة كمثل شخص كان في الوفاة لم يقل الفزز والذي أقل من الصلاة دون ما كان هبل نفل الصلاة فضله المعصور وذنب من لازمه المغفور يا أيها الآجل صم سهر الصيام من غير تفريق وسن بالقيام وزكي أموالك دون النفس إن هدد النساء دون وقص وسران سخص المال إن سقات مئين دنياه بالأمامات رسول رب العالمين غزرا من كنز مال فاز من تسمر إلى ما صدق الجالس عن جهاد لله دون عذر ذي سداد اعلم بأن الأمر ونحيا على ذي قدرة أوجب ربه أولى تبا لمن مكن في البلاد ولم يهيئ منكرا إباد عليك بسنة والكتاب جانب زل الزيخ عن السواد ما أفسد الدين سوى الملوك أو ما أفسد الدين ما أقصر الدين سوى الملوك وعلماء السوء بالأفوك لم يبعوا لم يبعوا في بائهم نفوسهم وما ألت في بائهم نفوسهم وردوا في ديفة اليبين أنت الله أهل اليدين نختم بالصلاة والسلام نختم بالصلاة والسلام على الذي بشر بالختام كان سيد نور صح كان سيد نور صح نتفضل الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألجأه الجهل إلى احتقار سادات أهل الله والكبار كي لا ينال فضلهم للشقوى إذ قصده دنياه دون الصفوة نفره الخذلان عن إكرام أهل الهداية بلا انفصام ما خاب من أحب أحلى الله وما خدمهم لله نسأله بالفضل أن يرزقنا محبة القوم كما أمرنا اعلم أخي أن ليس للإنسان إلا الذي سعى من الإحسان لا يحمل الإنسان من أوزار قريبه شيئا ولا الأصحار صل الفرائد مع الخشوع رتل سجودك مع الركوع أو حضر أن كنز مال فاز من تشمر إلى امتثال عمر ذي الجلال سبحان ذي الجمال والكمال لمانع الزكاة ذي الخسران نار مع الحميم والثعبان لم يك في الكنز سوى الخسران والطرد واللعنة والنقصان هذا الذي حول كل عاقل عن منع حق الله دون غافل نفل زكاة المال قد قدمت فيه كفاية وما ونيت فضل تطوع الصيام قد ورد في الذكر والسنة ذي ذي اقتصد تبا لمن مكن في البلاد ولم يغير منكر العباد عليك بالسنة والكتاب جانب ذوي الزيغ عن الصواب ما أفسد الدين سوى الملوك وعلماء السوء بالعفوك لم يربه في بيئهم نفوسهم وما علت في بيئهم أثمانهم ورتعوا في جيفة يبين أنتان حال عاقل يدين نختم بالصلاة والسلام على الذي بشر بالختام joni ko hasan so hasan so Hasan so أعوذ بالله من السيدان الرجيم لذاك لا بلا نقصان بالسر والعذاب والأركان حان مماتك وأنت تلعب مثل منافق يصلي يلعب ينظر في الصلاة نقر الديك ما نال غير لعنة المليك نسوا بأنهم كإنسان الملك جارية ماتت وأهداها الملك وكل إذا دخلت في الصلاة كمثل سهس كان في الوفاة لم يكن للفلس سوى الذي عمل من الصلاة دون ما كان غفل نفل الصلاة فدله المعصور وذنب من لازمه المعفور يا أيها الراجل سم سهر الصيام من خير تفريد وسن بالقيام وزكي أموالك دون النفس إن وجد النساب دون وقس وسران سهس مال الزكاة مئين دنياه بلا ممات رسول اعلم بأن الأمر والنهي على ذي قدرة أوجبه ربه لا تبا لمن مكن في البلاد ولن يخير منكر العباد عليك بالسنة والكتاب جانب زي الزي عن الصواب ما أفسد الدين سوى وأفسد الدين سوى الملوك وعلماء السوء بالوفود لم يربوا في بيهم نفوسهم وما علت في بيهم أسمانهم وردوا في جيفة يبين أن تانوا هالي آجل يدين nahtimu bisalati wassalam ala llahi bussira bilhitam e allah jarama jarama ko ɓeɗo toɓɗano sappo en koye ɓen jaltuno e, e banggue moussaba ko ceerno ahmad wi koɓe capantate goho ɓe gonno e moussaba ko hanki sappo cuɓama hen sappo. ko baɗa ko baɗa éliminé kanko seyde noru ba ka éliminano ka éliminano en cuɓima hen sappo o wi hanki suɓama hen sappo ceerno yamirir no ceerno wiruno ni yo waɗi kono noon wonko ceerno wi kono noon wonko ceerno o wi o wi hay hanki ɓe ganduɗa kañumen elminano kamɓe fof yoɓe keɓ kamɓe pop yoɓe keɓ e musaba o mbele woɓɓe ɓe kadi mbaawa hirjineede he ko wayi ni jooni he ndeer sappo ɓe maa tato cuɓte heen ɓeen kañumen kañumen taw kañumen ngoni gañaaji ɗi njeeɗiɗo heddiɓe ɓe ndewa heen nawgas ussaaɓe hanki ɓe Kambe pop cerno wi yo mbadan jeynari yo mbadan jeynari kambe pop assalamu aleykum jono on commission jindire koy mon Assalamualaikum min kadi min kala ɗo kadi wona kalmusa e assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulillahi rabbil alamin en jetti allah subahanahu wa taala mbaɗanɗo en oɗo nema ɗum ɗo ko e nemaji ɗi allah waɗani en eɗen goni e lewru korka eɗen goni e jamma lelatul qadri ene wayno oɗo sunna sunna hasana ko ceerno men hadimul hadara ceerno madana muntaka hal muntaka kanko fuɗɗi oɗo sunna e oɗo hadara holɗum kala jammanel to qadri o sutto e defte chehol fouti radiallahu taala anhu walla e qasayidiji muɗum o wiya sukaɓeɓe lewru korka ɗum so darima mbaɗe kimmire huñade oɗo qasida walla kimmire huñade neɗo deftere so tawi jammanel to qadri so allah jaɓi sen kawriɗo min mbaɗa jeenaji ƴeewee kala gañjiɗo fodde yimɓe tato cupte heen dokkee prix ji mawɗi heddiɓe ɓee kadi dokkee prix ji ɗo ceerno mum taga haalde jooni ceerno amar haaldi ni nde hikka o suɓii kamo ceerno madala o suwani heen ko deftere cheikh oumar wiyeteende tasquiratul mustarjidina wo falahu talibina allah faha chekh mo foti holto walli fi deftere nde walla fiile ko e rawda lat e sa sallam hakkude mimin mbar makko ɗo o walli fi deftere nde ɗo deftere nde abbayat tuji mum no foti ceerno amadou abiyatu ji ɗi temed ɗiɗi e nogas e joyi baytu wonko haalat heen o haalata heen ko neɗɗo hono foti waade hakkude mum allah hakkude mum e windere de holno so tawi wonko allah hokkuma martaba allah hokkima laamu holno poɗɗa waade eɗen cuɓoɗo jim ɗi tan walla tati ciftinen koye nder deftere he woni ɗo wino ilam bi anna al amra nahya على ذي قدرة أوجبه رب أولى تبا لمن مكن في البلاد ولم يغير منكر العباد وبي ما أفسد الدين سوى الملوك وأولماء السوء بالأفوك سكي شيخ الفتي وبي نبو يامير ko موجي يحد hadde بني لم كلا kala mo ganduɗa ene waɗɗi e kala neɗɗo mo allah rokki hakkille rokki sembe o ardi e nder diine walla o ardi e nder hadara walla o ardi e nder galle walla o ardi e nder société mo foti hadde ko hadde ko boni o waɗa ko moƴi o wi so tawi diine o wonko boni hen wonko wayni hen wonko ayi hen ala ñingeteɗo so wona ardiɓe e aduna e ardiɓe e diine ɓe so goñima peuple o oño soɓe peewi peuple o feewa ɗum yo allah hokkin ardiɓe fewɓe yo allah hokkin ardiɓe fewɓe ɗum ɗo wonno komin jinno siftinde on ceerno madana a jarama yo e allah yew moƴƴere saabu ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni wurtinde wurtinde ko tawi hande kala ko chef umar foti accuno e wirasa e gandal ene foti wurtidede hande saabu ko ɗum woni ko nafara en ɗum ɗo ko wajuji mayi kono maala asaf jiiɗo amen o fof hawrani e ɗum ɗo gueɗe kewɗe en ponno hannde tawa eɗen kuñi dendagal ko sehu mbaɗa accuno saabu ɗum ɗum woni faaro meɗen ko ɗum woni hannde ko nafata en ɗum woni ko siftinde aduna he ɗum ɗon noon ceerno a jarama yo allah yow moƴƴere eɗen men yaltinde ɗum ɗoji ɗi yaltinde résultat ji ɗi eɗen mbiya wa fi dhalika falyatanafasi l mutanafisun li misli hada falyamal amilun ko ɗum ɗo foti ko yimɓe foti hirjinde hirjinede hen sukaɓe kirjinee e- ɗum ɗo foti ko poɗɗen daraade jamma e ñalowma daroɗen darde ha tiiɗa mbaɗen mbayen no ceerno o wayni mbaɗen ko watta ko ceerno a jarama yo allah yew moƴƴere onon ne ceerno amadou onon darinoɓe ɗum ɗo onon sukaɓe fof on jarama duuɓi nayyi joni ko ɗum fuɗɗi ceerno ceerno mumtoga asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu leen di nuyuwaat di leen ziyaara ne concours doon def léegi téere mawlaana Cheikh Umar Fuuti radiyallahu taala anhu téere bi mu ngi tudd tazkiratul mustarsidin wa falaahu daalibin Mawlana Cheikh Umar mu ngi ko def si diggante rawd yonent bi sallallahu alayhi wa ak gàngu neew bu mu doon toog di xutba ajuma foo la Cheikh Umar Fuuti radiyallahu taala defee téere bi mu ngi ko def atu junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk la taalif téere bii moom Cheikh Oumar Foudi waaye nag gàcce ngalaama àdduna di dox ba njabootam di doonalante lii ba mu ñëw si Ceerno Seydou Nour jël lépp sëf ko Mawlaana Ceerno Muntaqa Ahmad soo gisee téere Ceerno Muntaqa aljawahir wa durar téere bu am solo lool téere bu bari ay fawaid lool téere bii ñu doon jàng léegi xale yi di ko jàng dëxëñ nañ ko ci biir téere boobu di aljawahir durar waaye Ceerno Madaani Muntaqa xalifa bi yow tamit gàcce ngalaama dese woo puso bi puso bi daal réer lii léegi luy toll ñeenti at ñu ngi koy amal fii sa ndigal ngir lan ngir wesaare xam-xam ngir lan ñépp jot si gàcce ngalaama yàlla na la yàlla fay sérif nag leena léegi si abiyaat yu mu doon wax léegi defe naa jàpp naa si maa afsada diinu siwal mulu wa ulama wu suubil cheikh Umar radiyallahu taala anhu ne tabban liman makkana fil bilaadi walam yugayir munkaral ibaadi ne tabban kii de alaku na kii de sànku na liman makkana fil bilaadi kii mooy si wàllu àddina te walam yugayir moom de jéemul changé munkiral ibaadi ñaawteef yi jaamu yàlla yi di def mu ne nag aleyka bi sunnati wal jaanib zawi zeyxi ani sawaabi mu ne maa ngi lay fàggandiku na nga mooy si sunna yonent bi sallallahu alayhi wa nga daal di mooy si alquraanul karim di téere borom bi tabaaraka wa taala na nga moytu moytu ndiku nag balaa ngay jeng di jëm si leneen li nga xamante ne doo si am payu borom bi tabaaraka wa mu ne nag maaf sara diina amul lu yàq diine ak àddina lu dul ñii si wal muluux lu dul ay buur yu kàccoor nekk ci àddina di dàmmat àddina di sànq àddina wa ulamaa yu suuy ak boroom xam-xam ya nga xamante ne seeni xam-xam mooy xam-xam ña nga xamante ne ñi borom bi tabaraka wa taala wax masaluhum ka masalil himaari yaamilu asfaaran ñoom seeni xam-xam daa mel ni nga jël mbaam nga sëf ko ay téere téere yi ngay sëf ay mbaam mbaam bi xamul ci téere yi dara lu dul sëf lu mu sëf téere yi mu ne borom xam-xam yooyee tene te tamit ñuy wax la nga xamante ne li nekkul ci diine ñu yàq diine lii la xalifa bi waxoon nañ ko résumé ci wàllu wax jëre jërëjëfati assalamu aleykum ko hoon ko holon moƴƴi joni e commission ɓe njewtidi e dañaji ɗi ɓe kaala joni ille ɓe ngannduɗa kañumen toɗɗa o wi gardiɗo e gañaji ɗi ko seydou nouru so seydou nouru so ummu jeeɗa fa hani allah ka ceer seydou nouru so yaaru ceeru to hani joxe prix la ñuy joxe kii mooy premier ki gagné mooy Thierno Seydou Nourou Sow ki koy jox prix mooy suñu baay Abdallahi Tall moo ko jox jigéen yàlla na nga ko muurloo yàlla na si yàlla def barke koyi nafoore heeɓi ko ko totta ko haale ha ah? o tottama ujunaji capanɗe tati cent cinquante mille o totta 150 mille au total ceerna jarama ɗum ɗo abdoul so kañum rewi hen abdul so anne fahani allah ka alhaji ma musse mamou dia totram pirimako musse mamou dia totram pirimako kanko dewde heeno ujunaji nawgas cent mille franc isrina alaf sappo joyi kono mbiwda nawgas soixante quinze mille soixante quinze mille ujunaji sappo e joyi dewɗo heeno tati ɓiijo ko labbel so labbel so workoɓe workoɓe pettuɗe tan workomɓe petore tan sherif kañum tottatan piiri makko lambel soo ko sherif tottatan piiri makko kanko sherif abdoul qadir toɗo cilay kanko labbel so o heeɗi ujunaji sappo o yi heddi ceera amadou wi heddiɓe ɓe jeeɗiɗo heddiɓe sappo be. ceerno makki muntaka o waɗaniɓe kamɓe poppiri nane junngo ceerno makki kamɓe pop kamɓe heddiɓe dursitinoɓe en jaata ceerno makki toon tan dursitiɓe jeeɗi dursitiɓe hannde ndewe ndewe ndewe jeeɗiɗe wasita mijango par goto goto ceerno ahmad wi caggal ɗum windanoɓe hanki ɓe fof windanoɓe hanki ɓe yoɓe gara ɓe ɓaɗo kala bindiɗo hanki yo ar ɓaɗo yoɓe ndewɗo ɓe gara monsieur le ministre habib ndiaye to tampiri makko excellence monsieur habib ndiaye o ko ɓiɗɗo galle o Dr. Ahmad Tal Bicara Muntaka Dr. Ahmad Tal kamu Bicara Muntaka Alai Ibrahim Masih Asi Wane Bicara Muntaka Oh, kanyum wali directeur tooru hôpital Sédhiou nga xam ne moom mooy directeur hôpital Sédhiou moo ko jox jeex na ah test timi nawgas hankiɓe on gare gare gare satu ceerno amu amu nogas yoɓe garema yoɓe gare e eh, fatɓe gadda Monsieur Mansour Lo Monsieur Mansour Lo Serigne Mansour Lo mi nu yaay joxe prix bi Monsieur Mansour Lo Serigne Mansour Lo Serigne Mansour Lo mooy joxe prix yi walla nawgaas ɓe ngare monsieur Mansour Lo jërëjëf jazakumullahu xayran wala lii de indi baan mooy taal kañum tottire ole prix mooy taal mooy taal mooy joxe prix bi képp ku jot génnal kala ko taalu mooy taal yow te ne jërëjëf yàlla nañu yàlla may ñu teewaat na ni déwén alaaji Haaruna Ba Ceerno Haaruna Ba ko ñu tuddee idée mooy joxe prix yi got jaaraam barakallahu fiik alaaji Haaruna Ba ko ñu tuddee idée allah rukku naftorade heedi edi. ceerno fala mum daga ali ceerno haali ceerno haali mo ceerno muntaha عمر نور عمر عمر جا عمر جا عمر جا يا ده عمر يا ده عمر أرجع عمر أرجع مستوى إلى مستوى مستوى يا ده عمر أتمنى وحقنا لا وحقنا لا السلام عليكم مبولم ñi ngi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu taala wa sallam di ñaan Thierno Madani mi am initiative defar li yàlla yàlla bàyyi ko fi ak wer yaram leeral xelam waxtaan bi d'abord bés bi selna na guddi bi sell na karim lañ fi def fàttali tamit waxu Cheikh Umar Fuutiyu Cheikh Umar Fuutiyu waxam nak du daneen lu lu sallallahu taala sallam wax mais li ñu si kontaanle mooy ay xale yu ndaw ñëw di ñu waxal lu Cheikh Umar yu wax pour defar jikko yi pour dellu si yàlla xale yi ñooy ëllëgu senegal ñooy ëllëgu ñëpp donc bu seen xam-xam selle ñu dem tibb xam-xam bi si Cheikh Umar Fouti ñu ko tubbee si biir alquran roy sunnas muhammad fedd li ñu ko dañuy gën a sant yàlla di góorgóorlu xam ne am nañ yaakaar bu si xale yi dégg nañ bu baax seen wax Madani mi ko xalaat ak équipe am ko xalaat defar ko ba mu sell ñëw déggal ñu ko ñun sax daf ñu yedd parce que nañu ñu si yalla si bes bu sel bi tax luñ doon def ñu gën góor góorlu ko gën rafet defaral suñ jikko parce que du alal du petrol du lenen. jikkoom moo war a sell jikkoom mooy defar àddina doomu aadama du alal doomu aadama jikko la sallallahu taala alayhi wa sallam si ay jikkoom lañ ko tagge kon nag ceerno madaan njaa jaaraam xaala waram bat bat xaala suba kontaan nañ su xol fees na parce que da nga dem si valeur lu yàlla def muy valeur muy doom aadama muy xale d'abord nga dem si Cheikh Umar Fuuti mi dellu si alquran dellu si sunnaf muhammad sallallahu taala wa sallam ay xale yu ndaw wax ko bu rafet nga neex seddal seen xol jox leen la nga xam seytaane la sabari alal xaalis wante tax nañu góor góorlu ba sellal ko yaakaar nañ dinañ ko jëfee dénk nañ la yàlla jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla sàmm ak njaboot Alhaji Moustapha Thierno nee na jërëjëf nee ni yow ak ñi des ñëpp jërëjëfati yàlla nañu borom bi nangul li nga xamante ne moom lañu liggéey ne prix bi ñu ko duppee Ceerno Muntaqa Ahmad radiyallahu taala lan moo tax Ceerno Muntaqa Ahmad dundam yëpp daf ko def ci jàng te jàng rek la bëggoon ba semaine bu mu dajeeg boromam tabaaraka wa jàngale na moom Ceerno Muntaxa darsu fii kër gi ne mag ñi ak tu tànk yi ñépp ne doomam ak kudul doomam soo bëggul jàng Ceerno Muntaxa bugg la soo bëggee jàng rek Ceerno Muntaxa bëgg na la fekk xam-xam buy njëriñ ne jàng bu munta doon ceeru muntaxaa soo jàngee rek muy alquran muy ahadis muy français muy anglais muy allemand muy espagnol na nekk jàng rek بعدين شيخنا منتقى فقها أصولا بلاغة كذا لغة وسيرة المصطفى تفسير آياتي إن بديني مولين شيخنا منتقى أحمد منتقى شيخ الفوتي شيخنا منتقى فقها أصولا بلاغة كذا لغة وسيرة المصطفى تفسير آيات إنهم فمبديني مورنين شارن المنتقى أحمد المنتقى شهر الفوتي محمد المنتقى من فوت موئنه وفضله أما بلدانا وقارات إنهم فمبديني مورنين شارن المنتقى أحمد المنتقى شهر الفوتي إذا تباها فهول الناس بالحسب آباؤه الغر أصحاب الولايات شرن منتقى يكفيه مجدا شرن منتقى أحمد منتقى شمر الفوتي أعمده خلقا أعمده خلقا فأفعاله كالقلب قد وافقا دبقا محمد المنصور تبرم دارجي أوي شرن منتقى سلالة بيت للولاية آنقت درايتها وبابها لا يرى غلقا enen fof mbaɗeni mawninen ceerno montaga ahmadou montaga cheikh amadoul fotiyu sulalatu baytin lil wilayati anagat dirayatuha wa babuha la yura halga ceerno montaga yagumu ala am لنفع العباد يكره الشر والفرقة شر منتقى مسائه في شرق البلاد وغربها كشمس دهان أمت أشئتها خلقا ملاد اليتامى مبديني mawni شر منتقى أحمد منتقى شيخ cheikh ahmadoul fouti والأرامل جملة يسوي صفوف المسلمين فما أبقى سيد جلو سيد جلو ne yu mu woy léegi lii de moo nekkoon Ceerno Muntaga Ahmad ne jëf yi nu ñu mel ne jëfu Ceerno Muntaga la toppandoo ne yitte Ceerno Muntaqa moo nekk nii Ceerno Muntaqa buggul si doomi aadama lu dul doomi aadama na nekk ku mat doomi aadama munoo mat fekk xamoo borom bi tabaaraka wa fekk xamoo yonent bi e xamoo li war si yow walla li ñu warloo si yow domi adam budul dox soxlam ko kooku ceerno muntaga amul si yow soxla ka nga xamantene ne ku teyal ceerno muntaga amul si yow soxla ceerno muntaga borom yitte la wo yitte ju kawé yitte joje ceerno muntaga amé won mu ko don si mamam cheikh umarul fuuti radiyallahu taala anhu yitteel Cheikh Omar ko jom himɓe Cheikh Omar Fouti borom yitte la woon de Cheikh Omar ko kiroowo Cheikh Oumar ku doon fiiri la ko ku bañoon doomi aadama nekk ku yàccar ko gañju dafa bañoon doo nit ku ñuul ñu daldi ko gën Cheikh dafa bëgg doomi aadama yépp nekk ay borom xam-xam ñépp tamit nañu juboo nañu déggoo lii de mooy Ceeru Muntaqa lii mooy Cheikh Omarul Fuuti lii mooy njabootu ci Cheikh Oumar Fouti. nag su waxee njabootam. Ah, wona du kii moo meññ kii meññ kii ba mu egg si kii de. ilahiyankoɓe fof ne képp ka nga xamante ne yaa ngi askanoo si borom bi njabootu Cheikh nga. képp kuy askanoo si borom bi njabootu Cheikh nga. cheikh oumar daa bëgg ñëpp askanoo si borom bi tabaraka wa taala ñëpp nañu nekk ñii jaamu borom bi tabaraka wa taala la nga xamante ne safaan lii mooy cheikh mu ne cheikh de mooy laay suñu borom fa imalu na jëf fa sa yara llaahu amalukum suñu borom dina jëf gis seen jëf wa rasuluhu ak yonantam bu tedd bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wal muminuuna jullit ñu baax ñi waat dinañu gis la ngeen jëf ceerno nee na yàlla nañu yàlla nangul suñu jëf yu baax lépp luñ si faxastalu mu nekk ay rëcc rëcc yàlla nañu ko borom bi jéggal ne mboole mi waa réew mi ñu ngi leen di ndokkale si guddi yu tedd yi ak bis yu tedd yi ne ñu ngi si jiital suñu baay di Ceerno Basiir Muntaqa Daha ñu ngi koy ndokkale si bisu tedd yi ak mboolem xalif généraux yuy ŋànk wàllu diini lislaam ñu ngi leen di ndokkale si bisu tedd yi nee xalifa Cheikh Ahmad Bamba di Sëriñ Muntaqa Basiir ñu ngi koy ndokkale xalifa ka nga xamante ne mooy sa Abdallahi Ñas ñu ngi koy ndokkale Sëriñ Sëriñ Babacar Si Mansour xalifa général Tijaan ñu ngi koy ndokkale Njaasaan ak laayeen ñépp daal si gàttal ñu ngi leen di ndar ndokkale Ceerno Ahmad Tijaan Ba xalifa ca Madina Gunaas ñu ngi koy ndokkale si bisu tedd yi xalifa koy ndokkale si bisu tedd yi mbooleemi xarit yi mbooleemi am di jàmm yi mboolem xalif généraux yi réew mi ak lu génn réew mi ñu ngi leen di ndokkale si bisu tedd ne mboolemi njabootu jullit yi fi ñu munta nekk si àdduna wërngal këpp yàlla na leen yàlla baaxal yàlla wottu leen yàlla yiir leen udditam udditam eɓen jang eɓen jang eɓen jang eh, bismillah yéen yooɓe yimɓe keɗo qur'an ni jangge so nañu déglu ñu ngi jàng alquran beneel kaamil lii moom moo ko sosoon lii tollu léegi fukki at ak juróom di 15 moo ne woon suñu paree nawaafil yi di taraawi bi nañu jàng kaamil alquran kon nag ñépp nañu déglu ko amul juqi na nga nekk si salaatal faati ba ñu noppi julli julli kaamil o mu ne kaamil bi o wiide allah jaarama ne kaamil bi ngir lan ngir ñu ne borom bi jërëjëf ko nele men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko lim ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wiide allah jaarama nee ñu ne suñu borom jërëjëfati ko waɗi seydna cheikh tidiane ceerno men ko bi mu defee seydna cheikh tidiane chérif radiallahu taala anu mu nekk suñu sëriñ allah jaaraama ñu ne jërëjëfani ko waɗi cheikhu oumaral fouti coggoowo meeɗen ko bi nga defee cheikh oumarul fouti mi ñuy ommat di ñu jëmale si yoonu borom bi tabaraka wa taala ko waɗi ko min mbiyaamu o jaaraama kanko allah ñu ne yow borom bi jërëjëfati de ko waɗi ɗo ceerno seydou nouru haa addi ɗo ceerno muntaga ko li nga def fii ceerno seydou nouru ba ceerno Seydou Nourou indi ceerno Muntaqa si wetam. yow o jaaraama kanko mu lay ne yow borom bi jërëjëfati de si xéewal ju ñu defal. ko ceerno Muntaqa darni oɗo hadara. ne ceerno Muntaqa moom moo taxawee hadara bi. wurti en. mu daal di ñu xiirtal. e rewde Allah. ak jaamu borom bi. e jàngude borom bi. E ak def lu baax yàlla wàllu en mbayan noonu yàlla nañu borom bi dimbali ñu mel noonu yàlla wokk en wattindi mu yàlla nañu yàlla may ñu fekkee war ayat yat alhamdulillahi ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moƴƴin Senegal. yal na yàlla baaxal Sénégal. moƴƴina ɓesgu fof. yal na yàlla baaxal mbooleem Senegal. Sénégal. moƴƴina ardiiɓe Sénégal. ñi nga xamante ne ñoo jiite Sénégal. yàlla na leen yàlla baaxee yàlla na leen yàlla kàttanal mo allah waɗi ɗo hannde o alaji makky sall yo allah junno mu ɗo kii fi yàlla def mu jiite réew mi ki son excellence monsieur président Macky Sall yàlla na ko yàlla may tawfiq ak naja ni mu yore réew mi omo ni yàlla na ko yàlla may réew mi mu def ko ni ko jullit yi bëggee ak ni ko réew mi bëggee ak ni ko yàlla bëggee yàlla na yàlla def juboo ak déggoo ci biir réew mi en calmini fuuta rewo e worgo funnaange e hirnaange ñu ngi nuyu fuuta penku ak sow gànnaar ak saalum asalaamaaleykum جيد سالي اكيد ها بوا ها بوا دابا دابا من اللي قال ولا انا اه سالي اول قلت له بوا اي جل سالي اكيد فريسي بخطو بيك Mm.

famille Samana ñoom dina ñaan dina ñaan ci comme ni ma defoon ci bi si laaj bi. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ñaari ñaari ñaari ñaari deux heures sax parce que ñun dëgg fa itam dañuy gën a ci émission bi ak dañ ñaan nga xam wala bi social loolu am na demee ma dañ seet ne ñu màkkal sa responsable corruption am sinon dañ laa ci def ay 55 minutes Camilo Kazan. Daha sal soruyor. Daha sal. Daha sal. Sor sor. Moussa Gassi. Abdoulaye Diouf woo Terima kasih. no gasi Terima kasih. Terima kasih. ceerno yeɗen yonde bahari ceerno wi eɓe nduwo noon yo allahu rokku on barke alqouranul karim eɗen jetta mawɗo dental ngal hono ba abdallahi tal jinnaɗo meɗen gila yimɓe ummi rawde asrul juma omun ɗo jooɗi e e, e, ɗo moƴƴere woni e galle cheikh oumar fof omo tawe hen yo allah ɓoynu manggu makko docteur ahmad tall ko miñiraɗo moƴƴo ko fawa he dow makko fof dongal ngal omo rondi ɗum e ono ceerno sey ceerno muntakamo ceerno banuru ceerno yiɓe beltima yiide on hmm. e o wii an muntaka mo banuru aɗa jogui gueɗal keeri ngal e galle sababu nde bamma banuru no wano ɗo ceerno seydou nuru jibinimo wi banuru ya wondoy e ceero muntaka kanko banuru ko ceero muntaka ɓurinimo hunde pop kolonel jahate kañum ari ɗo gila humtaka denndaangal televizyon ŋaaji ɗi calminaama sukaaɓe sarwoɓe calminaama nduwanaama ceerno abdallahi dieng ceerno abdallahi dieng imam ceerno abdoul ndiaye to wudduru onon pop ceernoyi on calminaama on njuuraama responsable en cuuɗi maɓɓe onon kon responsable en toodu cuuɗi mon to kono ngowka e barkinoraade e jotondiral baabiraaɓe e e mon e ceerno muntaka hitaande fof ngaron gaccon responsabilité ji mon ngaron ɗo mhm, ngaron e jejjitaani chiw surafawen ɓe nde ɓe ngari dental pop ɓe cuɗat ɗum on jarama kalaɗo emo haalaka kalaɗo hemo haalaka ma taw ma haale tan so tawi wawno tan dewgol inde itte so tawi wawonom dewgol inde itte ma foftiɗ ɗum ma foftinti yimɓe ɓe waaɓe no maɓe mbawa teskari fofen eh. kono allah teskima fofen allah teskima fofen yo allah tesko en enen pop on jarama jaɓen duwawa mbiyen amin amin hmm? amin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 وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن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 وبكل صورة سلاما وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع وبكل ربع نعمة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف غلفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضائل ضياء وبالذاء ظفرة وبالعين الماء وبالعين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعدة وبالنون نورا وبالواو وصرا وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه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 والمسلمين والمسلمات وإلى روح شيخنا ووالدنا سيدنا محمد منتقاتان إلى جميع المسلمين والمسلمات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوصر الحظ والنصيب وما أنزلت عليها من سوء وبلاء وفتنة ومرض وفقر فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم حوائجنا فاقضها يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 amin ceerno yo allah jaaba ko duwa yo allahu rokku en er wattudni kadi mo wuuri kawriten ɗo laawol gonngol kawriten ɗo laawol gonngol calmini yummiraɓe galle ɓe ceerno wiiɓe calmini yummiraɓe galle ɓe calmini yummiraɓe galle ɓe golle maɓɓe fof timmi jooɗi golle yummiraɓe galle ɓe fof timmi yooɗi ceerno modi dia ceerno modi dia ɓen beltima e o do jam hitande foof ko ni mbatta e ceerno amali, min jetta hadi diouf eɓen jetta hadi diouf hadi hadi golle ak ñeyal nana si say jëf yu baax yow ak ñi nga nekkal ñep ndeymar aka jaabaro ak ñi ngeen nekkal ñu ngi leen di nuyu ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm jërë ngeen jëf